أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di leen ziyaara di leen baalu àq di leen baal àq fas yéene dellu si ak yéen ci seen juróom ñaareelu burdu muy buntub juróom ñaareel bi albaabu saabi fi israihi wa mirajihi muy rañaan ga yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom daf ko yónni ci ay nitam ay nitam weddi ko tàmbale ci waa Màkka mu jóge fa dem Taif kër nijaayam ñu boole ko ak xale yaak nit ñu wérut ña ñu tongal ko di ko yuuxu ak di ko sànni xeer ba deretam tuuru mu dawewaat fa dellu si màkka waaye nabi dafa bari yërmande am xol bu rafet ndax fi ko fi ñu ko sonalee sànni koy xeer ba tànkam yi sax di nàcc mu toog ci garab di ferloo ko noppalu jibril fekk na ko fa ni ko bu la neexee daal ma wàcc ma dajale ñaari montagne yi dëkk bii ñuy wax Taif daal di raaf yonent bi ni ko na leen bàyyi rekk dañoo xamut te yàlla mën naa def bu ëllëgee ay nit juddu ci ñoom ñuy wetal yàlla muy waa Taif te yàlla def na ñépp mujj jébbal seen bopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam foofu jibril fekk na ko fa ni ko ma dajale ñaari montagne yi raafal dëkk bi lawla nabiyu rasulallahi laxturimu bil axshabayni walakin man na min karami ca cheikh alhaaj malik ca xilaas yonent bi nag bi ko waa suuf détesté yàlla ni ko kaay ma organiser la ab voyage fii ci asamaan ñu teeru la fi xanaa loolu moo gën a rëy kon mooy voyage nocturne di prophète mooy al isra'u wal mi'raj mënuñoo dugg nag ci détail yu bari ndax waxtu wi duñu ko may te dañuy bañ tamit audio yi gudd yenn gudd yi moo tax dañuy doyloo rekk li imaamul Busayri indi yam ci bayit yi mu indi ginnaaw ba yeneen gëstu yi mënees na ko yaatal imaamul Busayri nee na yaa xayra man yammama alcaafuuna saaxatahu sacyan wa fawqa mutuunil aynuqi rusumi nee na yaa xayra man yow ngën ji nga xam ni yammama jublu na alcaafuuna way xaaraan ya saaxatahu attoom sacyan ñuy way dox ñenn ñi wa fawqa mutuunil aynuqi rusumi wa fawqa mutuuni ak ci kaw ay gëléem fa foo ko mu tuunil ay noxi ak ci kaw ay gëléem ar rusumi ya di way gaaw matn mooy zahr mooy ginnaaw buñ ne fulaan ala matni sayaara mooy diw war na oto sàngam waaye waxuñu ni dafa yéeg ci kaw porte bagage ba doone fii batni sayaara wala fii daaxili sayaara loolu du fasaaxa ci arab waaye ala matni sayaara aw ala matni alqitaar ala matni taaira mooy li nga war loolu lañ naan matn moo tax olof buñ koy firi naan wa fawqa mutuunil ay nuxi rusumi wa fawqa mutuuni ak ci kaw ci kaw jog reyn ay naaga ar rusumi ya di way gaaw waaye daal li jar a xam rek mooy mat nu mooy ginnaaw dara mat nu daraaja boo waree vélo naan ala mat ni daraaja mi ngi ci kaw vélo bi mu ne nag yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñi ko jublu ñi ya ngi dox ñi ya ngi war mu ni waman huwa al ayatul kubra li muctabirin waman huwa al ayatul waman huwa nicmatul uzma li muxtanimin mooy yaa man huwa la rek mu ni waman huwa ak yow mi nga xam ni al ayatul kubra yaay kemtaan bu màgg ba yaa ma yaani yaa man huwa al ayatul kubra li muctabirin ñeel aji xalame ji muctabir mooy koo xamante ni day xalaat li muctabirin ñeel koo xamante ni mu fakkir la day xalaat di settantal mbir yi wa man huwa yaani yaa man huwa wa man huwa ak yow mi nga xam ni yaay an nicmatul uzma yaay xewal bu màgg ba li muxtanimin ñeel ku kuy kuy koomtu kuy sàkku dara lu waay di sàkku demal jublu ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy an nicmatul uzma mu ni ko sarayta min xaramin laylan ila xaramin kama saral badru fii daajin min azulami nekk géwél yépp nekk géwélu yonentu bee ci gën a for imaam Busayri géwélu yonentu bi la sallallahu alayhi wa sallam mu ni sarayta rañaan nga min xaramin jóge ci ab xurum laylan lenn ci guddi boo nee laylan guddi gi yépp du baax waaye lenn ci guddi gi ilaa xaramin jëm ci beneen xurum mu ni ko ni nga ko defee mooy kama sara comme ni weeru badar di sara kama saral badru comme ni weeru badar di sara weer wu am fukki fan ak ñeent loolu la ñuy wooye al badru tollu ci diggu dooley leeram mu ni fii daajin ci ak kukk daajin mooy zulmun daajin mooy lëndëm kukk mina zulami ci ak lëndëm ak zulm mooy lëndëm waaye daajin mooy lëndëm gu kukk moo tax mu ni ko kon rañaan nga min xaramin jóge ci baytullahil xaram ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa muy rañaan ci gudd laylatul isra dafa dem wër kaaba ga ñetti yoon jibril ñëw indil ko alburaax mu war ko alburaax ba mu ko waree muy cëpp-cëppi yonent bi jibril da koo yedd ni ko ku gën a tedd kii yéeg ci yow musulta yéeg sa ginnaaw jóge baytullahil xaram ànd ak moom jëm baytul maqdis ca Jérusalem alboraax daabala goo xamante ni àggul ci fasta yées na mbaam kon mën nañ koo tudde bax la muy barkeele li naan doomi fas ak mbaam comme noonu rek fu bët bi tege tànk bi mën na faa tege moo tax doxam gaaw mu ni ko kama sara comme ni muy rañaane albadru weer weer bu tolloo ci fukki fan ak ñeent lañ koy wax badar avant loolu lañ koy wax hilaal su ko jéggee ñu koy wax xamar waaye bu tolloo foofu lay badar léegi nag weer woowu bu ne bu taxawee da ngay gis niir yi di daw di ci jaar lépp da leen di xotti da koy tas ndax leer gi guddi gi nga gis ko guddi lay dox kon weeru badar ndax bu jant bi génnee dootoo gis weer wi mbaa dootul leeral waaye bu dee guddi gi moom mooy kotse ci kaw mu ni noonu nga rañaane rek ci lëndëm googu gu kukk googu mu ni ko wa bitta tarqa ila an nilta manzilatan min qaabi qawsayni lam tudrak walam turami mu ni ko wa bitta fanaan nga wala fanaane nga tarqa di yéeg ginnaaw ba mu demee baytul maqdis jérusalem jiite fa yonantu yi ridwanullahi alayhim ca la jóge nag jëm kaw di yéeg asamaan mu ni ko ila an nilta ba nga am manzilatan wàccuwaay boo xamante ni min qaabi qawsayni moo gën a jige xoccuk ñaari xala xoccu xala bopp ndax min qaabay qawsin la lañ waxoon bopp nit na ñu xalb ko min qaabi qawsayni waaye min qaabay qawsin mooy fi ñu jàpp ci ci ci ci ci fett fett ni mi lonkoo noonu fi ñu jàpp ak fi cat la nekk jige gi mu jige an ala kulli xaal arab mooy taabire noonu di wax bu bëggee melal lu jige danaan xaaba xaw say new àddina lu toll ni xaaba xaw say new àddina maanaam jige naa ko lu toll ni xaaba xaw say new àddina bu ko waxee mooy jige naa ko lool boo ne woon jige naa diw lu toll ni xaaba xaw say ni aw àddina wala lu koy yées maanaam jige naa ko lool loolu rek la wax ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci isra ak mi'raj jige na dem na ci wàccuwaay boo xamante ni jige na suñu borom jige goo xamante ni nit musu faa àgg ndaw musu faa àgg mu ne nag martaba boobu lam tudd rek kenn musu koo jot walam turami te kenn musu koo sàkku kenn musu koo jot te kenn musu koo sàkku kon jigéen yonent bi sallallahu alayhi wasallam détails yu nag gis na yàlla gisut yàlla coow lu bari na ci ci borom xam-xam yi xataa ba ci saxaaba yi ndax yonent bi Abdullah ibnu Abbas dafay wax ni suñu borom gis na ki yonent bi gis na suñu borom sayyidatuna Aïcha wax ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam gisut yàlla ndax laa tudrikul absar wa yudriku suñu borom kenn du ko gis loolu la alquran wax laa tudrikul absar wa yudrikul absar moom kenn gisu ko bët du dal ci moom lakinna zaataka laa tura illa kama tandaku qurba jalaalihi al a'laamu sëñ ci ameti yan si ala kulli xaal détail yooyu duñu ci dugg waaye daal am na martaba boo xamante ni lam tudd rek walam turami kenn àggu fa te kenn sàkku ko ginnaawam ndax kawe mu ni ko wa qaddamat wa qaddamatka jamiicul anbiyaai biha war rusli taqdiima maxduumin ala qadami mu ni wa qaddamat ka te jiital na la ca guddi googu jamiul anbiya mboolem yonentu yépp jiite nga leen julli war rusuli ak ndaw yi al anbiya war rusul taqdiima maxduumin jiitalu ku ñuy liggéeyal ala xadamin ca ñami liggéeyal maanaam jëwrin ci ñi nga xamante ni moom moo leen féete kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci baytul maqdis jiite na mboolem yonentu yépp julli dog faa jóge yëkkati ku jëm asamaan moo tax mu ni ko wa anta taxtariqu sab'a tibaaqa bihim fi mawkibin kunta fiihi saaxibal alami mu ni ko wa anta ta mbir moomu yow taxtariqu yaa ngay xotti yaa ngi jiitu jiite yonentu yépp ba pare jóge fa di xotti asamaan yi taxtariqu ngay xotti attibaaqa déele yi mooy asamaan yi rek asaba yay juróom-ñaar bihim yaani bi musaaxabatihim ànd ak ñoom mooy ñamu àndal fii mawkibin ci ab cortège mawkib mooy mbooloo moo xam mooy niñ ko mën a firee olof bu ñu mën a dégg wala bokk ci baat bu ñu mën a comprendre mooy cortège président buy jàll ak cortège bi mu àndal noonu lay demee loolu mooy mawkib kunta mu ni ko nekk nga yow sallallahu alayhi wa sallam fiihi ci mawkib boobu muy cortège boobu saaxiba alamin borom drapeau ba ñëpp yow lañ doon joxoñ ñëpp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lañ doon joxoñ ca guddi googu lim naan ko nag fii mawkibin boobu maanaam ci asamaan yi nga xamante ni romb na ko juróom-ñaari asamaan yépp romb na ko fu mu romb fekk na fa benn yonant ci asamaan su njëkk si mi ngi fi romb sayduna aadam asana asamaanu ñaare bi mi ngi fa romb isa ak yaxya beneen asamaan bi mi ngi fi romb yuusuf beneen asamaan bi mi ngi fi yomb idris beneen bi mu romb ci haarun beneen bi muusa bu juróom-ñaareel ba alxalilu ibrahim kon yontu yàlla ibrahim moo ñëw devant muhammad sallallahu alayhi wa sallam aadamu fam nu xaalatayhi yuusufu idrisu haarunu fa muusa al arafu summa alxalilu hakaza tartibu ulaa'i laylata sara alxabibu noonu la toftaloo mu ni xatta ida lam tadaa sha'wan li mustabiqin min addunuwi wala marqan li mustanimi mu ni ko dem nga ba xatta isa lam tada ba bàyyi dem nga ba bàyyiwoo sha'wan benn lef li mustabiqin ñeel aji aji sàkkoo jiitu ji min addunuwi ci ak jege wala marqan wala benn yéeguwaay li mustanimin ñeel aji sàkkoo yëkkatiku sha'wan li mustabiqin xam nga nit ki buy def course dafa am lu ñuy wax sha'u mooy arrivé ba fa nga xamante ni fa la ñëpp bëgg a arrivé mustabiq bi mooy ki nga xamante ni day sàkkoo rawante mu ni ko nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg na ci arrivé boo xamante ni kenn kuy rawante sax gisut barab boobu ba koy xalaata àgg ci ak jegeñ suñu borom minat dunu wi ci ak jegeñ wala marqante bàyyiwoo benn yéeguwaay li mustani min ñeel kuy sàkkoo kawe képp kuy sàkku ak kawe doo xalaat ni dinaa àgg fa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam àgg déedéet moo tax mu ne ko xafadta kulla maqaamin bil idaafati isnu diita bi rafxi misla mufradal alami mu ni ko xafadta suufeel nga wàcce nga kulla maqaamin xafadta bu dee ci naxwu danañ ko jar nga jar alxafd kulla maqaamin bépp daraja bil idaafati ci ci ci idaafa ci bañu la daafee mooy bañ la toftalee isnu diita jamono ba ñu wootee bi rafe ci rafa misla mufradal alami comme mufradul alam lii lépp ay vocabulaire grammaire u arabe la dafay nuróole yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak yëkkatikoom ni moom daal comme mufradul alam ci baabul munaada ñi nga xamante ni ñoo jàng grammaire xam nañ ko munaada dañ koy nasab bam def mufradul alam dañ koy binaa ak damm moo tax moom fu mu toll moom ma nga ak dammam gu nekk ca kaw dañ koo rafaa mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen yi ci des nag dañ leen di nasab dañ leen di jar ndax dañuy idaafa comme mudaaf mushabbahu bil ki shabihu bil mudaaf ak yooyu yépp buñ leen nasabee la ca topp dañ koy jar ndax dafa idaafa ah kulli xaal loolu ay détails yu kii la li mu bëgg a wax rek mooy yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam ñi seen mar yonentu yi am nañ martaba am nañ ak kawe waaye yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mënatuñoo gis kawek yeneen yonentu yi ridwanullahi alayhim wala salawatullahi alayhim moo tax mu ni kayma tafuuza bi waslin aya mustatirin an il uyuni wa sirrin aya muktatamin mu ni ko kayma tafuuza ngir nga tuuf bi waslin ci ak jokk goo xamante ni dañ koo nëbb aya mustatirin dañ koo nëbb nëbb goo xamante ni kenn mënu ko gis an il uyuni waliif bëtu nit ñi wa sirrin ak mbóot moo xamante ni secret soo xam ni dañ koo nëbb gumu ci nëbb ay yamukata tamit dañ koo nëbb boo xamante ni kenn mënu ko gis yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sayidatuna aisha radiyallahu anha mus na laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam nu la yàlla di wax yoo maanaam bëgg a xam wax yu bi ni muy demee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yaa ngi bëgga laaj loo xamante ni jibril alayhi salaam sax dañ ko ko nëbb jibril ci boppam xamu ko kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay mbiram darajaam maqaamaam kenn xamu ko lu nëbb la dafa nëbb kenn xamul daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu toll moo tax sayyidatuna Aïsa bi mu ko ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni ko yow yaa ngi laaj loo xamante ni dañ koo nëbb jibril nëbb ko mikail nëbb ko wala nabiyun mursal wala malakun muqarrab nga bëgg koo xam ci xadis bu gudd fa awqa fa awxa ila abdihi ma awxa loolu la lo lool bo aaya boobu la ko Aïsa laaj ni kon lu la suñu borom wax yu kon lim ko wax yu lépp kenn xamu ko maanaam am na maanaam naka la koy wax yu ak nu muy demee loolu lu ñu lu ñu réere la waaye lim ko digal nag jox ko ko ni ko jot li ko nit ñi moom jot li na lépp amut leen lum ci nëbb ndax yonantu du nëbb ab risaala waaye ay mbiru yonantu bi sallallahu alayhi wa sallam daal lu nëbboo ngi ci fa xusta kulla faxaarin fa xusta kulla faxaarin gayri mustarakin wa xusta kulla maqaamin gayri musdaxamin musdaximin bopp imaam Busayri nee na ko fa xusta mooy mooy mooy moo moo mën a tagg yonent bi nee na ko fa xusta làq nga kulla faxaarin bépp puukare lépp lu nit di puukare woo yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam làq nga ko xayri mustarakin te bokkoo ko kenn li nga ci yor keneen yoru ko mu ni ko wa justa te jéggi nga dépassé nga kulla maqaamin bépp daraja xayri musdaximin te raj-raj loo woo ca te buuxante woo ca maqaama boobu amul kenn koo cay buuxanteel kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo yor xaatamul anbiya wal mursalin mu ni ko wa jalla miqdaaru ma wuliita min rutabin wa azza idraaku ma uliita min niamin mu ni wa jalla màgg na miqdaaru ma darajab la nga xam ni wuliita méngeef na la ko wala ràngaleef na la ko min rutabin ci ay daraja wa azza te jafe na idraaku ma jot la nga xam ni uliita xéewaleef na la ko min ni amin ci ay xéewal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daraja ji ko suñu boroom ràngal kenn jotu ko jafe na tamit mu ni wa azza jafe na tamit idraakuma jot la nga xam ni uliita xéewaleef na ko min ni amin ci ay xéewal xewal yi nga xamante ni moom la suñu boroom defal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jafe na keneen am ko wala boog keneen du ko am sax moo tax ndax mu ni busra mbégte mu rëy busra lana maasara al islaami inna lana min al inaayati ruknan gayra munadimi mu ni busra mbégte mu rëy rëy rëy lanaa ñeel nañu maasara al islaami ñun mbooloom lislaam inna la naa ñeel nañu rukk nan ab ponk minal inaayati ci ak jagle wala boog waaw minal inaayati ci ak jagle xayra mun hadimin boo xamante ni du màbb mukk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu am mbégte moo xamante ni indil nu diine joo xamante ni beneen diine du ko folli moo tax mu ni rukk nan xayra mun hadimin ndax diine yi fi jiitu woon ay arkaan lan waaye dañ leen a mujj folli alxuraan moo ñëw folli diine yi nga xamante ni moom moo ko jiitu woon te alxuraan nag fii ba ilaa yawmi diin benn diine du ko folli moo tax mu ni lama daa allahu daa'ina li taatihi bi akrami rusuli kunna akramal umami mu ni lamma daa allahu ba yàlla woodee daaina aji woo suñu moom suñu borom li taatihi ngir ñu jëm ci topp ko lum ñu wooye bi akrami rusuli ci ki gën a tedd ci ndaw yi la ñu yónnee mu ne kunna ci lañ nekk kay akramal umami gën ji xeet te loolu lu xel mën a nangu la président bu la yabalalee premier ministre loolu kay mooy tegtale ne yow ko foor nga ndax moom li li ko jege li ci gën a foor mooy premier ministre am kon suñu borom li tax ñu nekk xeet wu tedd mooy daf ñoo yabalal yonent bi gën a tedd kuntum xayra ummatin uxrijat linnaasi waaw boobu mooy bayit bi mujj kon yaakaar naa ni ci buntu bi ñu nekkoon muy isra ak mi'raj imaamul busayri loolu la ci indi bu ko defee incha allahu ci buntu bii di ñëw di wax ci jihaadu yonentu bi sallallahu alayhi wa sallam di juróom ñetteelu buntu kon ñu yemale foofu bind bi ba subaak jàmm inchaa allahu wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu